Limaam Balde mi ngi fekkoon Serigne Khadim Dieye Serigne ak Serigne Mouhamad Fadal Ndiaye moom tamit Serigne Daara Serigne Ibrahima Mbacke jóge ba Touba teew na fii ci jotaay bi Imaam Cheikh Ndiaye ak Imaam Rahmatna Salat ñoom it teew na ci jotaay bi jàmm yàlla ak Imaam Mouhamad Ba moom tam jàmm nekk Serigne Mor Talla Ndiaye di suñu sëñ daara yal na moom teew nañ jotaay bi yal na ko suñu borom fay Serigne Cheikh Diop ak Serigne Moussa Diakhaté sëñ Modou Mokhtar Diakhaté Touba ñu ngi teew nañ ci jotaay bi Serigne Moustapha May mu ngi teew nañ jotaay bi imam Serigne Khadim Ndiaye moom doon wax léegi di euh, njiital daaru tanzil mu doon wax léegi yàlla na suñu borom fayal ma nit teew na ci jotaay bi. Faal sax mu woon pompier moom it teew na ci jotaay bi Serigne Dame Niang Serigne Daara moom it teew na ci jotaay bi. Serigne Thiebo Gueye moom it teew na ci jotaay bi. mu ngi ñëwoon ñun ñëpp rek waaye ku dégg suñu ku nekk xam na ne li maa leen andi ci biir ndax dañoo bëgg a jublu ci dëgg-dëgg liggéey bi ci nga xam ne ñoo waral bis bi. ginaaw bi sante allah subhanahu wa ta'ala ñu julli si yonent bi alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal moom ak sahabaam ak waa këram ak képp ki nga xam ne dañuy topp seen yoon boo e, bisul penc e, ginnaaw loolu mbokk maa ngi gërëm di sant mbokk yi yëpp di gërëm e, suñu sëriñ bi di doon joxe ay kàddu léegi ngeen baal ma nag man na dégguma olof bu baax eh, maa ngi ñaan ñu yëpp ñu bàyyi si xel moom lu mu wax maa lu du wax léegi wax na fi man a wax bu am solo comme mbokk bi eh, luñ ko leerane noonu eh, moom si alquran lay wax maa ngi ñaan allah subhanahu wa taala yàlla ñu wàlla mooy may ay xol buy eh, denc alquranul karim loolu si weesoo maa ngi sant di gërëm mooy suñu ustaas eh, Moustapha eh, man na li ma ci wax mooy si si wàllu jàkka bi ñun am Moustapha ñoo bokk si jàkka ji moom bu mu ñëwee fii ma li ma ko gisee rek ma xam ne kii nitu alquran la donte xaw ma ko woon dama koo gis rek ma xam ne kii nitu alquran la kon noonu laa ko gisee tamit moom bu mu ñëwee fii eh, di xamante lépp waa quartier yëpp mu xamante yëpp eh, kër bu nekk eh, dem na foofu di nuy mbokk yi nekk foofu kon loolu yal na ko yàlla fay man na sama kaddu du gudd du sori parce que dégguma olof ngeen baal ma bu baax eh, mot nag ngënal lu ñu jàngal alquran ñu ngi ñaan allah subhanahu taala xale yi di jàng alquran yàlla na yàlla sax alquran bi seen xol ak seen xel yàlla ñu yàlla mokkal alquran yàlla ñu yàlla jëfe alquranul karim kon yent bi sallallahu alayhi wax yent bi nee mot na ngënal si nit ki mu ne xayrukum man ta'allama alquran wa allama ki gën baax si yéen ci jàng alquran ba pare di ko jàngale yent bi nee si beneen hadis iqra'u alquran fa innahu yati yawma alqiyamati safian li ashaabi jàngaleen alquranul karim ndax ëllëg yawma alqiyamati comme sëriñ bi wax léegi alquran day ñëw keroog di raam di xettali ki xam ne eh, ki ka kon yàlla ñu yàlla may ñu mokkal alquran maa ngi ñaan eh, yàlla subhanahu wa taala xale yi di mokkal alquran yàlla ñu yàlla nekk njiite ñi jàng alquran si dëkk bi ak si aduna bi yëpp eh, maa ngi sant yëpp di gërëm yëpp wa aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfirullah innahu ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalamu سيدنا محمد المكي وعلى آله وصحابته والميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ginnaaw bi ma di sant yàlla bu baax a baax a baax baax di doon di sant yàlla bu baax a baax a baax kaddu yi du gudd kaddu dong lay doon mbooleem li ñu fi wax lépp wax wax nañu ko kon nag ñu ngi sant suñu borom yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi sant suñu ñaari waajur yi xam ne ñoo ñu njaboote bañ tollee ci jàng ñu yóbbu ñu ci daara ñu jàng ba yàlla may ñu ci tuuti bañ man di ci nab nabi ba am ñu suñu borom yàlla wattu doora ñu wattu alxuraan jaarale ko ci nun kon ñu ngi sant bu baax di sant suñuy sëriñ daara yi ñu jàngal alxuraan tam waaye di sant mbooleem parents d'élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci ñoom la seeni doom nekk fii ci daara Kanzul Muhtadin ndax itam seen confiance bi nga xam ne am nañ ko ci ñun ak kóolute gi ak yaakaar ji ci jëm lu dal ne doom ak doom di mel ci xol ñu dégguñu ko ngir ne nañ leen defal ci ñoom alxuraan ci man am sax ñu suñu alxuraan mbirut na war a mel kon ñooñu wàcc nañ ñun ñoo ci des wàcc nañ ñun ñoo ci des bu fekkente ne doon nañ ay gor waratuñoo nelaw waratuñoo lekk ba suur ndax confiance boobu ñu dénk te ñu war leen a rendre compte waaye war a rendre compte suñu borom bi nga xam ne moo ñu bind ci xam lépp gis lépp kon ñooñu ñu ngi leen sant bu baax a baax ci confiance bi waaye di leen sant bu baax a baax ci seen taxawaay ci daara yi waaye di leen sant bu baax dem ci seen taxawaay ci bis bii ndax tamit ku gis ni ustaas wax léegi sëñ Xaalim Jéy gis nga ne bis bii ah fere yi métti na lool ca ñun mënuñu dara amuñu dara ni ma ko waxoon ca ba ñu tàmbali bis bi waaye ñu ta eh, takku laxasaayu def ci liñ man liñ mënul ñu jéem ko ba bis bi mel nii tey kon ñooñu ñu ngi leen bu baax di leen ñaanal di sant tamit liggéeykat yi nekk ci daara ji yëpp tàmbalee ci sëriñ daara yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jàppale ci daara ji ndax itam ay xale yi nga toll nii ku ne xam na ne benn nit mënu leen a jàngal kon ñooñu nga xam ne ñooy def effort yu rëy rëy di sonn ay coono ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax cant goo xam ne amu fu mu amu fu mu sonn nañ lool ci xale yi def nañ seen effort yi man yëpp ngir ñu mën am li ñu am tey tàmbalee ko ci seen Cheikhouna bi jiitu ak seen Cheikh ak seen Cheikh Gaye jàmbaar loolu itam amuñu guddi amuñu bëccëg xamuñu fajar xamuñu guddi xamuñu alxames xamuñu aljuma lépp rek ne ci liggéey bi fas yéene donga yi li ñuy war ci ñoom ñu def ko na mu ware waaye ñu ngi sant itam eh, sunu soxna bi nga xam ne moo nekk ci daara ji ak sunu rakk yi nga xam ne moo nekk ak ñun ci daara ji nga xam ne ñoom ñaar lépp luy waañ bi ñoom ñoo ko seere ku ne xam na ne waañu kër métti na waaye rawatina waañu daara chaque jour daanaka mën a mën a ngay toog dangay dem ba da ngay fàtte sa bopp du tootal sa bopp boo xëyee yaa ngi ci defarum ndékki mala xale yi ndékki bay jàngi ngay xalaat taal añ ndax ci ay programme la ñu dox programme yooyu nag jàngalekat bi bu wàccee dafa war a teel a ak jàng ak xale bi dafa war a teel añ ngir dallu ngir mën a gont kon nag yaa ngi fas yéene def loo man ngir añ bi bañ a tardé ndax saa saa yu añ bi tardé rek yaa ngi lor xale yi te bëgguñu xale yi dara lu leen lor te ñoom gis nañ seen taxawaay seen ci sonn ci gone yu jigéen ñi tamit ci seenu yar seenu jubbanti ci seenu taxaw ñu ngi leen di sant bu baax a baax waaye di sant tamit suñu rakki bopp yi nga xam ne ñoo bokk ñu ne ci biir daara yi donte ay ndaw waaye def nañ ñi ngi def luñ man ngir ñëpp jag ngi def luñ man ngir fuñ tële ñu wutuñu ko kon ñoom itam am nañ leen ak cant bu baax a baax a baax waaye di sant tamit suñu mbokki ustaas yi nga xam ne ñoo bokk terrain bi bokk nekk ci daal bi di ay jàngalekat suñu kilifa rek ñoo fi nekk imaam Xaadim Njaay léegi li fi jógee xëy na dina jëlu si di gi nga xam ne euh, ginnaaw biñ jàngee ba noppi daara bi doon defar suñu alxuraan ba luñ ci mën a kus néew ci di ci nab nabi ba man ci luñ mën a teqantale mën naa fa lañ ko xamee kon ñu ngi koy sant di sant sëñ Xaadim Njaay mii nga xam ne moom itamit biñ demee ca daara ja moom la ñu booleeloon mu ñuy dimbalee di ñu teqantal ba lu ñu xam ci wàllu tajwid ak la ci aju akus néew moo na ko xamal kon sëñ Xaadim yow tamit amuñu safa yi la sant di sant tamit suñ sëriñ daara sëñ Abdou Ñang mi nga xam ne ci moom lañ tàmbale woon alxuraan mu ne fële ci daaru man naan yore daara ja ñu baree bare bari man ak sama morom jàngee ci moom ba man alxuraan tey kon bërki démb xale yi biñu demee tar yi ñu leen doon teel moo leen jiite bañ paree tamit na bi demee lépp leeral na ñu ngi koy sant moom itam ak mbokku jàngalekat yëpp ak mboolem ñu nekk ay jàngalekat ne ci dëkk bi ñëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax ca xam ne ñoo bokk liggéey bi lépp day benn kenn ku ne nekk ci wenn waar di bay kon nag ñi ngi sant tamit mboolem ñi nga xam ne ay xame lañ wala ay dëkkandoo ak ay jege ñaare nga xam ne alxuraan rek moo leen moo leen ñor ñu dégg bis bi ñëw ñu ngi leen sant sant boo xam ne am na temps waaye amatu bi yamukaay waaye nag waa koñ bii nga xam ne tam ñëw nañ fi yàgg ñu fi dara ñu ñëw fi ñu ubbil ñu bool ñu seen bopp ubbi ñu seen i néeg ubbi ñu seen salon lépp loo xam ne soxla nañ ko rek ñu yombal ko maa ngi ci jiital Serigne Darame nga xam ne sama dëkkandoo la Serigne Assane Thiaw nga xam ne sama dëkkandoo la di ci eh, wante Serigne Samb mais nga xam ne moom itam taxaw na taxawaay bu am am solo bu dee ci jigéen ñi tamit soxna Rama Sarr ñoom ñëpp seen taxawaay rafet na seen taxawaay rafet na Ousmane Ndoumbe Diop macha allah yal na yàlla fay leen ta barke leen ci xam alxuraan rek moo am fay. bu loolu weesoo tam may sant bu baax a baax a baax tamit ñi nga xam ne ñoo nekk fële ca fa ma dëkkoon di unité 6 fa daara ji sosoo woon nga xam ne ñoom itam mobilisé woon nañ kenn desul imam ba mu ngi fii nekk imam ca jàkka yi nga xam ne fa lañ nekkoon. imam Fall euh, nekk Bilal moom tamit ci suba ba léegi mi ngi fi sapeur pompier xam ñu amul jot waaye bàyyi na léppam ñëw ngir bis bi ñoom tamit ñu ngi bu baax waaye di baral ak cant euh, Baye Diagne mi nga xam ne moo nekk président daayira bi nga xam ne moo nekk foofu ci unité neuf di daayira bu ràññeeku ñoom itam ba bis bi taxawee ba léegi am nañ ay waxtaan yu yàgg am ay réunion yu yàgg waaye diggante démb ak tey daanaka mën naa wax ne waa këram yi démb fi lañ fanaan fi xaw a fanaan ndax nekk ci liggéey bi lépp lu lu fi lu ñu war a liggéey ci wàllu doole lu ñu war a liggéey ci wàllu matériel lu ñu war a liggéey lépp taxaw na ci taxawaay bu rafet bu am am solo boo xam ne amuñu seen fay yàlla rek moo am seen fay ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñaanal suñu borom fay leen yiw te yàlla rek moo tax ñu koy def waaye tamit duma fàtte sama mbokki daara yi nga xam ne ñoo bokkoon ni ca moo xam daara ji ci daara manaan la woon moo xam daara ji fii ci daara tanzil la ñoom ñëpp teew nañ ñi mën a ñëw ñëw nañ ñii ñëw nañ démb ñi ñëw nañ la ko jiitu ñii ñëw nañ euh, ci suba mboolem liñ man ci taxawaay bi ñu fi di liggéey lépp ñoom la ñu ñun defuñu dara kon nag ñu leen sant bu baax a wax di leen gërëm di sant tamit sëñ Ibrahima Mbacke mi nga xam ne moo fi teewal ci turu sëñ El Hadj Mame Thierno Mbacke teew fi ci turu sëñ Moustapha Mbacke teew fi tamit en tant que koo xam ne suñu sëriñ la waaye suñu xarit la moom itam ay njabootam ay njabootam mi ci daara ji ñoo xam ne indi na leen fi wax dëgg yàlla ñëw itam am confiance ñun akub doyloo rek moo tax mu indi leen fi te képp kum dégg ngay ngay xalaat ne da ngaa bëgg jàngalu mu orienté la fii loolu nag kon ñun dañu ñëw sas sas woo xam ne wax dëgg yàlla dana war a góorgóorlu war ñoo euh, euh, yaafus war ñoo naagu kon nag ñu ngi sant ñëpp di sant mbokki bopp yi di sant mbokki dëkkandoo yi di sant mbokki deret ak mbokki jegeñaar yi di sant umma islamique bi yëpp mboolem ku fi teew ku amal yéen teew ñu ngi sant kàddu yi muy gudd te kàddu yi sant dong la mën a doon sant dong la mën a doon kon nag ok Pa Cissé mi nga xam ne tam moo nekk chef de quartier bi buntu këram baas nii ah xam nañ ne lu mel ni tamit lu baax la waaye am na biir yu am na dérangement bi ñu ko bëggee ci mante dañu ko yombalal ni mu gën a yombe kon ñu koy sant ak waa kër Mouhamed Lamine euh, tàmbale ko ci seen yaay yaay Caana Njaay ñoom ñëpp seen waa kër ñoom ñëpp wax dëgg yàlla jàpp nañ ci bis bi bàyyi seen kër ubbi seen i ñëw wàllu waañ ñu ci góorgóorlu baax a baax waaye nag di sant sant spécial koo xam ne ñëpp lañ sant bàyyi la suñu boroom moom dañ koy ñaanal duñ ko sant mooy suñu yaay ju baax di suñu yaayu daara soxna Xadi Sekk depuis bi muy tàmbali daara ji ba fi muy toll alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, kàddu gi nga xam ne jox ma ko euh, dafay taxaw ci ñaari yëf mooy benn bi ci kàddu parents d'élèves yi lay doon benn bi ci koñ bi nga xam ne quartier bi nga xam ne ci turu jàkk nga xam ne maa fi représenté euh, ci kaddu mbooloom parents d'élèves yi ci jikkoom ak ci dayoom ak ci dëggoom ak ci xam-xamam may wax ne mustafaa ñu ngi lay ndokkeel ñaari yoon euh, ñu ngi lay ndokkeel ngir li nga xam ne yàlla def na ko ci yow ci xam-xam bu rafet ci alquran ju rafet yoo xam ne doy na képp ku jël doom andi ko ci yow wante balañ laa ndokkeel ci sa alquran ji dañ kay ndokkeel ci jikkoom ndax Moustapha xale bu am yar la bu am teggiin la bu dëggu la bu gëm li muy def la euh, du alquran ju rafet ji kese moo tax ñu jox ko suñuy doom daara yi bëri na ci daara lañ judd ci lañ yaroo mooy suñu yitte fu mën a ne mënoon nañoo yóbbu suñ doom ci yeneen daara waaye avant tout yar lu am solo la te nit ku ne ki yar jikkoom foog nga jël ko kon Moustapha euh, rafetlu nañ sa jikko doog laa ñemee jox suñ doom gannaaw bu ñu rafetloo sa alquran ji ñi ngi koy ndokkeel ci métier mi nga xam ne mooy gën ci métier yi mu tànn ko muy jàng alquran ba pare métti boobu ndax yonent bi bu naan ku gën ci ñun mooy ku jàng alquran bu doon lool rek yem ci ñun ñëpp jàng nañ alquran waaye wa allamahu jëm moo ko tàqale mooy tànn métier mi def ko muy métier ba tey danaa wax ci kàddu quartier bi nga xam ne fi la dëkkoon baye ko fa ñëw fii xam nga ne daara ji yàggul ñeenti at wuru koo paase juróom ñetti xale mokkalee fa euh, xam nga ne loolu du lu tuuti ruq bi mu newoon ñi di ko fa romb muy jàngale ñi naan waa ji lan lay def fii tey ruq booba génne na tey lan la doon fa def képp ku jàng alquran te mokkal ko wala nga xam ci dara résultat bi mu wane ci xale yi nga xam ne juróom-ñett lañ ñëpp mokkal alquran alquran yoo xam ne kenn munta teg baat ci jàngin wi vraiment loolu ndam lu rëy la résultat bu baax la ci juróom juróomi at lu ñuy ndamoo la lu siggil ñi ko jàngal la waaye nag parents d'élèves yi ñoom itam kontaan nañ ci moom rafetlu nañu am njàngam ñi ngi féddale kóllëreem ci moom di ko dénkaat suñuy doom ak yi nga xam ne mokkal nañ ba pare ak ñi nga xam ne ñëwaguñ ñi fi nekk it ñi ngi féddale kóllëre ci moom di leen ko dénkaat di ko ñaana yàlla dëgëral ko bam def ci ñoom xam-xam bu bari ñi ngi koy ñaana yàlla di ko ñaana bark alquran yàlla na ko topp waa koñ bi mu bayee ko la ko daree ci imaam ba ci sama turam turam ak sama tur magi jàkka ji am na ñu bari ñu ñëw ñoom it ñu ngi koy ñaana yàlla di ko ndokkeel di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam bu rafet malgré gone la waaye jikkooy mag la yore ndax doo ko fekk ci benn mboosóor doo ko fekk muy taxawaalu doo ko fekk mu ànd ak ñoo xam ne ñu jëmut fenn la kon daal maa ngi ay waajuram ne ñim ñu dëkk kontaan nañ ci moom gërëm nañ ko ñi nga xam ne ñooy ay sëriñam itam ñi ngi seede ci moom xam-xam bu rafet ak alxuraan ju rafet ak yar bu rafet ak mën a jàngale goo xam ne nii li ñu jàngalal suñuy doom doy nañu rafetlu nañ ko xam nañ yaakaar ci moom di woo képp koo xam ne am nga doom bëgg mu jàng alxuraan say waajur jàngaloon nañ la alxuraan te amoo joti jàngale ko wala amoon saa suñu jàngal ko alxuraan dabaatal googu war nga andi sa doom fu mel ni ci daara ju mel nii ci sëriñ bu mel ni ci njàng mu mel nii pour li faatoon ci yow nga dabaat ko sa doom ñi ngi woo ñépp seeni doom ñu andi leen ci daara njàng te nag leen nit danaa ko Euh, sëñ bi waxoon na ko sànq mooy parrain d'élèves yi seen doom yi ñu indi ci daara ji di warloo moom xaalis bu tuuti ne dañ koy participer ñu tuddee ko fay alquran ci boppam kenn mënu koo fay ali karamallahu wajha radiyallahu anhu dafa waxoon ne man ku ma jàngal benn araf ci alxuraan rek mooma moom bu ko neexee def ma jaam bu ko neexee mu liggéeyloo ma bu ko neexee mu goreel ma yow ñi jàngal sa doom bët bu set alxuraan ba mu tari ko mënoo ci lu may ay vingt-cinq mille ak trente mille vraiment loolu day wane ne sa bëgg alxuraan des na na jàpp ci daara yi mooy li nga xam ne mooy suñ ndono mooy mooy suñ téere bi nga xam ne moom la yàlla wàcc ci ñun pour ñuy jëfe li nga xam ne li ci ne tey nag yàlla def na ci barke boo xam ne képp kum topp dana topp sa njaboot topp la ba faw nañ leen jàppale ustaas yi surtout Moustapha mi nga xam ne moo na jox si doom xam nga ne kër gii mu luyee lim ci fay ci xaalis ak dund bi ak njàngale mi ak lépp li nga xam ne war na ko juróom benn junne xam nga ne mënut loolu kon nag nañuy participer ci daara ji bu baax suñuy asaka suñuy addiya suñuy walanteeru suñuy ndesiti bépp weset weccet nañ koy indi ci daar ji te yàlla tax ak dimbale suñuy doom ak dimbale sëriñ bi maa ngi invité mbooleem parents d'élèves fii ngelawaay waaye buñ yóbbu su doom ci daara ji rek bàyyi ko weer dee nga joxe juróomi junne juróom benn junne foog ne def nga dara dara nga def ndax ku yóbboon sa doom ci école français yaa ngi fay lu loolu man am na école yu ma fay yoo xam ne ñuy fay cent mille francs inscription quatre cent mille cinq cent mille di la laaj yeneen xaalis yu bëri nga yóbbu sa daara alxuraan fay trente mille rek foog ne def nga dara dara nga deful nañ leen dimbale daara yi rawatina Moustapha mi nga xam ne joxoon suñ doom vraiment résultat bi mu am baax na ci diir bu gàtt bi mu am gëm na ko bëgg na ko alxuraan ji rafet na riwaaye ko riwaaye warsh moo riwaaye bi gën a jëfe ci warsh riwaaye gone ñu bëri mënuñ ko jàngale sax mënuñ ko sax di ko mën a jàngale moom mu jàngal ci suñuy dam ba mokkal alxuraan ci tari ko mboole ñuy jàngal alxuraan toog fii déglu nañ xam nañ benn xata amu ci alxuraan ci xale yi li ñuy jàng gàkk amu ci yàq amu ci ci man alxuraan loolu vraiment euh, maa ngi bañ a guddal waaye vraiment loolu doy na ndam kon mbokk yi guddal na waaye guddal gi du dara lu may tawkit ci loolu yal nañu yàlla dimbale yal na ko yàlla jàppale barke alquran wa ma dalika an la bi asi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh am na solo lool macha allah kon uh, yow Serigne Ahmad Ndiaye moo war a jàng xatma bi mu ñëw toog waaw uh, balaa muy tàmbali mu xaar ndigal uh, Serigne Ibrahima Mbacke lañ bëggoon saa dina ñetti nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi Serigne Moustapha mi nga xam ne ni moom la yàlla dogal ci coobareem mu jiitali ba yàlla def nu man fee teew moo ngi koy jiital nuyu dem nag kilifa yi fi teew yëpp nag teg ci loxo la Njaay mi nga xam ne ni moom moo fi bàyyi ko di wax na nag nun suñu kàddu rek mooy sëriñ bi moo nu fi teewloo di sëriñu Moustapha Diop dox nu ndigal sëriñ Moustapha Mbacké wax nu nu teew fi ci ndigalal sëriñ Maam Thierno kon loolu rek moo tax nu teew fi ak it nag sama teewaayu bopp ma dugal ko ci biir ndax sëriñ bi Moustapha Diop day sama lépp nu yàgg lool waaye su ma sëriñ bi yónnee rek mel na ne man teewatuma kon nag sëriñ bi nee na sëriñ Moustapha Diop lii ngay def moom moomee moom nga koy defal ndax moom moo ko waroon di def ndax ñoom ñooñu duñ leen di ormal ak di leen jox cër ak di leen teg fenn fi téere bii la kon nag ñoom ñoo ñëpp dañoo waroon di toog ñoom ñuy futteeku di liggéeyal téere bi kon nag yow boo leen ko teewalee rek di def li mel na ne ñoom nga koy liggéeyal kon nag ñoo ngi la ciy ñaanal eh, fi nga ci bëgg àgg suñu borom may la nga àgg fa gem ubbil ci ay buntu xéewal yu kawe kawe ci ci ci barkib Sëñ li ci des nag li lu am solo loo xam ne nii eh, ci fu mu jëm rek mooy yéen ñi bàyyi ndongo yi ak yéen ñi seeni wajur yéen wajur yi nga xam ne nii suñu borom daa defoon ngeen am seeni doom indi fii ñu jàng ba wattu téere bi ba toog fii eh, bañ wattu téere bi mokkal ko lool def ngeen li nga xam ne ni loolu la leen yàlla wax ngeen daal koy def muy képp koo xam ne ni gëm nga yàlla gëm yooyu gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo amee doom mu toll ci jàng na ko jàngal téere bi kon nag def ngeen loolu waaye nag dama bëggoon leen dénk loo xam ne nii day tàmbalee tey ngeen xam ne suñu borom jox na leen sas wu tàmbali tey mooy ñii nga xam ne ni ñoom ñoo fi mokkal ñëw jàpp naa ne kenn amagu ci bakkaar wala boog kenn lay doon baa ñaar wala sax jàpp naa ne sax kenn amagu ci fooy kenn kenn toll gu ci fooy amee bakkaar kon nag yéen waajur yi na ngeen sant yàlla ci loolu waaye sas wu bees wi nga xam ne nii moo dollekuwaat ci seen kanam nag bis ni ki tey na ngeen xam ne dangeen di doog a tàmbali doog a tàmbali loolu mooy tuut tànk yi bu nu delloo ca seeni kër rek na ngeen taxaw ci ñoom bañ leen a bàyyee mbedd mi ak euh, appareil yi ak euh, télé yi ba la ñu jàngoon ñu fàtte ko ndax Sëriñ Tuubaa nee na ëllëg yow man xëyaam de gisu fa gàcce gu gën a rëy suñu borom may la nga mokkal téere bi waaye nga saggan ba fàtte ko kon loolee yàlla nañ ci yàlla daqal ñu ko waaye nag yéen waajur yi bu seeni doom yi delloo ca kër ya na ngeen leen di njël ñuy jàng téere bi ba nga xam ne nii duñ ko fàtte ndax sëñ Moussa mi wàccoon ak yéen yéen nag li leen yàlla waxoon def ngeen ko waaye nag war ngeen a góor war ngeen a góorgóorluwaat ci loolu baax li ci des mooy ngeen jàngal leen seen diine jàngal leen ba ñu xam diine xam sarti diine xam li yàlla wax li yàlla digal ndax loolu mooy tax boo liggéey ñu xam nan la ñuy sàmmee téere bi ndax tout tànk yu toll nii bu ñu leen jàngalee ba ñu mokkal ñu bàyyi leen rek ñu dem boo liggéey duñu xam lan mooy wëllëru téere bi waaye faaw ñu jàngal leen li yàlla wax ci diine li ñuy yonte bi jàngal Sëriñ Tuubaa bindal ñu ay téere yoo xam ne nii téere xam-xam na yoo xam ne nii ngir ñu jàng ci suñu diine ba xam ko lool yi na ngeen leen ko jàngal ndax loolu mooy tax boo liggéey nu xam nan la ñuy fonkee téere bi waaye bu ngeen leen bu ñu bàyyi ko fii rek ngeen bàyyi leen ne mokkal nañ danañ dem ba fàtte fàttewaat téere bi te loolu li koy indi rek mooy ñàkk a jàng diine ak it ñàkk ak ñàkk leen teg ci aw yoon alxuraan moo gën jafe ci lépp lépp loo gis alxuraan moo gën a jafe ku yàlla dimbalee ba nga mokkal ko laneen lu ma doon rek mën naa dugg ci sa biir bopp kon na ngeen leen taxawal ci daal leen yar yee leen tërbiyee leen jàngal leen diine bu baax a baax li ci des nag mooy na nga xam ne sëñ Moussa mii nga xam ne moom la yàlla féetale lii lii ngeen koy jox par weer li sëriñ bi wax rek du dara ci moom waaye nañuy wut ay jaayante yoo xam ne nii dañ koy def bu baax a baax di ko ci dimbali bu baax a baax loolu ñu maa ngi koy sàkkuwaat ci ñëpp di wax say euh, sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax sëñ Moustapha nag nee na moom moo bëggoon a teew waaye sëriñ bi da ko jox yeneen ci yoo xam ne nii ci yooyu moom la nekk ndax lii nga nekk ñun ñoo ko waroon di def ñun ñi ndax bu njëkk yoon wi nu nekk mu yoon suñu Tuubaa da nga daan am sa doom indi ko ci daara ji ñu jàngal ko ñu tërbiyee ko ba nga xam ne nii bis bu fa génnee dana xam téere bi xam àdduna xam diineem tërbiyee gi wàññiku na léegi waaye lii rek moo ko mën a remplacer barki démb sama wëlëre wi ma jox ñetti doomam ne ma sama yoon nekkutu ci yow laa ko jébbal te responsabilité daa rëy ma ne ko man de mënuma leen a yar ndax euh, kër gii ma nekk mënuma boole di leen jàngal ak li ma sëriñ bi di digal ma nekk ci waaye danaa def tout tànk buñ ma jox ma yóbbu la ci daara ji ma ne ko nag am na sama wëllëre wu nekk fii ci Kër Massar nañ fa ànd ba nga dem ba nga jëbbal leen ko ma ànd ak moom ñëw barki démb rekk lañ fi ñëw ma jox ko ñetti tout tànk te loolu nit li li li ma wax léegi rek comme ñun ñoo waroon di jàngale kon nañ ci jàpp bu baax a baax kon yàlla na la yàlla barkeel bu baax a baax ñu ngi ñaan yàlla sunu borom képp ku fi teew rek suñu borom jéggal la sa bakkaar yëpp te defal la ay xéwal yu kawe ci barkeb Sëriñ Tuubaa jërëjëf. waaw yow moom yaa doon demal salaamaaleykum. waaw sëñ Mawne maa ngi lay jóg. maanaam ay saako ci xam-xam. ay saako ci xam-xam. waaw. moom moo la sëñ Tuubaa la wala wala wala saako ci xam-xam. say lor. na bañ. say diis. muñal di nga yeedu ko di nga jiitu yi say mbokk la yi fi jàngi woon nekkal di muñ jàpp kuy naboo benn bi tawat ba am ñu naan di waay xanaa dafa yor lu mat xam-xam bu ñëwee kuy jooju ci li ki yàlla mooy fekk muñ jàpp sol ko lool doo mun a mat gëstu Kasata mooy kajooju ni kile ka dugal bul buntu yi sànni alal jàngal tawe ngir buur bi mooy fàttu alal doomam ñu xëy ragal yàlla ngir diine ji na nga sàmm mooy kat du xam kàccoo du xam na nga yeewu kat jàngal ma jéeg jéeg jàng ji sàmmal ta daw boo leen jegee dina mooy tuñ raw gile kër du sax gile kër du jeex bu la kenn nax pour sànq leer di tee koy demee di nga rëcc sax gile kër du sax gile kër du jeex bu la kenn nax pour sànq leer di tee koy demee di nga rëcc sax. caméra bi. yéen yéen kay doo leen bàyyi bàyyi yow bàyyi sama tànk ba sa daal lii sëñ bi wax dégg naa ko. waay waay jërëjëf yow sa tànk sama tànk ba sa daal de. nee naa la jërëjëf yow kay ñu dem sa tànk sa tànk sëñ bi jërëjëf. Hare Vai! leen xale yi nga xam ne ñoo woote ci nga yàlla def leen mag yu am ñam di seen way ñi bëgg ci ñoom yëpp suñu borom def lu kawe seen jot ba yar li ñu def ci ñoom xam-xam ak lu def ci ñoom ñu wan ko seen way ñu wan ko ñu dëkkal wan ko dëkk bi Sénégal gi def yëpp ci borom defal ko yi gone yi nga xam ne ñoo nekk ñëw ci yoon bi di sàkku xam-xam ci borom teewlu leen alquraanu karim bañ bokkal ko bañ mën a dogal ci ay jotaay yu wuute di leen teral ci kàddu si borom yàlla fay ñëpp muy góor muy jigéen kon dañuy ñëw ci dam bi di nga xam ne ah, jox imaam si Cheikh Ndiaye moom mu bokk ci parents d'élèves yi moom mooy kàddu parents d'élèves yi moom mooy kàddu bi nga xam ne moo ci des su jàllee ñu daal di def xatmu daal di yëkkati jotaay bi bàyyi leen jëmoon incha allah ñu jox seen gàmbara mu nag suñu Ibrahima Mbacke mooy teg ñu ñëpp toog ñu fekkee ñaan bi incha allah muy yéwee ñu ci beneen yoon kon imaam bismillah waaw xam naa ci gàttal xam nañu ne ñetti minute rek nga jox sëñ bi mu ñaan. yow xam yëkkati jotaay bi ba incha allah déwén ak jàmm. ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala Serigne Ahmad Ndiaye jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah maa leen nuyu baax di leen ziar dañu léegi maa ngi commencé wax ay juróom waaye maa ngi leen di xamal ne daal di jënd daal di tabaski benn nawet bu ñu paree jëlee ba bu bàyyi xale yi ñu leen yore ñu xéewal ñu ba pare ñëwal nga ci parade ci am yéen ñu dañ leen jox xéewal nga mën ko yokk waaye nag di sant di sant ak ñi nga xam ne xëy na daan am visite chaque deuxième dimanche yor bu nekk tombé tey wala chef de village dañu gën a joxe wala te joxuñu ko ñu ngi saa gis ak direction bi incha allah ñu jéem a wàccuwaat loolu. bu loolu ñu weesoo nag ñu ngi tàmbali ko tey le 11 dimanche le 11 juillet ba dimanche la 4 la 4 le 8 août le 8 août incha allah moom la koy war a jeex ñaan ñoo koy ko bu demee ñu di leen soññ bu baax ñu gën a ko ñu gën a.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 إلى الجنة والنار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عظمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي في كل شر اللهم اجعل الخير عمري آخر ومغرب مغنية كعيشة هنية وميتة سوية ومنطقا غير مؤذي ولا فاضي اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وذق الموازين وعقد إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وفي خطيئاتي وأسألك علا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل والغنيمة من كل والفوز من الجنة والنجاة من النار اللهم بيدك ما تبلغنا ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثرنا على ما ظلمنا وانصرنا على ما عادنا